xam nga ñàkk bakkanam Sonko moom bakkanam boobu moomu ko yàllaa ko moom yàllaa ko yàllaa ko mën a sànq moo ko fa mën a bàyyi kenn mënu ko sànq rut yàlla lu mën a xewu jàmm itam lu pexe muñ mën a def ci moom te àppam jurug du fi jóge dama cee waxoon ci Balla Gaye Boy Niang ndax neewoon naa du komba te buñ demee ba ca làmb ja danañ xam ne du komba xëy na nag dox nañ ba làmb boole leen waaye du komba la tax ma xam naa ko ndax gone ak mag la te gone doole jum yor mag mun mu mëndu ko yor ñaar ñi nag xëy na si gone la Lac de Guiers mag la waaye bu ma sañoon actualité ci mbirum Ousmane Sonko euh, dugg ci mbirum làmb aussi dafa nekko xam ne nag ñu bëri ràññat ko ci émission yi mais teewut euh, tey daf na woon ñu ñëw fii war a waxtaan ak moom ci mbirum xam-xam euh, sëriñ bi ñu lay ziar. waaw kay lay fay nuyo bu baax a baax te di la ñaanal jàmm te di leen ndokkeel ci weeru koor gi ñu dugg di ñaan tam dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabil alamin di ñaan nag ci réew mi jàmm ndax jàmm rek moo xaj ci réew mi kenn ku fi andi ay ci sa ci sa bopp rek lay këpp nag wala commencé nañ ñaan ci réew mi jàmm te di ko dox di ko wax te di ko jëfee incha allah. Ah, macha allah sëriñ bi euh, nee na ñaan jàmm ah, tey dañuy waxtaan ci actualité actualité dañoo gis Ousmane Sonko fan yi gars yi ñu koy fitnaal euh, ci gis-gis euh, gis na ne bi passé génn woowaat nañ ko le 30 te le 30 yaakaar naa ci weeru koor la nekk tey jii gis sa gis-gis ci Ousmane Sonko. waaw xam nga nekkul fan yi moom daanaka danga danga danga naan ñaari at yi wax yëpp uh, programme bépp Sonko la te man gis naa ne programme bi yi ñu war a taxawal ci réew mi bari na uh, lu dul Sonko rek ndax Sonko rek niwu fi uh, liggéey yi bari na jamono ji naqari na te yaakaar naa kon war nañoo def yitte ci fexe ba nu réew mi doxee te paas bi ñu ñu ñu jëm ko jàll te jéem a jàll ci leneen loo xam ne dana avancé dana amal réew mi dana jëmal réew kanam. da nga jàpp ne daal mbirum Sonko jàppal bàyyil bi nekkul lu avancé loo réew mi. ah nag ndax xam nga li tax du ko avancé loo mooy euh, ñi ci faatu bari na mm-hmm. ñi ci bileesa bari na ñi ci am ay gàllankoor bari na te lépp rek programme moo ko waral ndax bu nit ñi dañoo bëgg Sonko boobu génnee ñu génn. te ku ci génn am na nu muy demee sa sa bakkan mën na caa des. mais dafa mel ni Sonko parfois moom mooy wax askan bi génn leen. waaw xam nga tam koo xam ne dangay ngay wuyu ji te yow yow ah, dem nga ba xam ne nit ñëpp seen lañ am nga droit nag bu ñu la woowee nga nga nga nga nga nga waxtaan ak waxtaan ak saw ñooñ ngir ñu dal waaye nit ñi àgg nañ ci moom foo xam ne euh, mën naa ne fii ne euh, seen xol la ñu demee ndax mbëggal gu ëpp daa dugal ñu ci musiba boo gisee ñi ci faatu ñëpp xër moo moo moo ko yóbbee ñi ci blessé xër moo leen ko yóbbee waaye itam réew mi damaa bëgg ñu xam ne réew mi dafa tàng jër fi mu toll nii. tàng jër ñu wàññi température bi te sarax yi ci war ñu di ko def. tey moytu ndax dama ne lépp politique la waaye lu mën a xew jàmm itam nit ñi bu bu leen kenn jaral bu leen kenn gën a bëgg seen bopp <clears throat> ma loola nit ñi bu kenn gën a bëgg seen bopp ndax koo fi mën a àndal lu mën a xew jàmm itam boo gaañoo wala nga am fi ay jafe-jafe du moo ji moo ji doo nemmeeku ji. kon daal dama jàpp ne kon àndoo ci euh, pamti pamte bi ñu def Ousmane Sonko suma ma yëgee. xam nga man moom du ma ànd ci lu dëgg xaw ma nag lan moo xew. waaye dëgg moom gëm naa ne ëllëg yow ma xeexam rek lay mën a feeñ ndax réew mi doxuñ ci dëgg waxuñu ko ba ko def kon nag gëm naa ne man fii moom dëgg muy fee feeñ waaye lu mën a xew jàmm rek nañ ànd ak dal nañ ànd ak dal te xam ne réew mi benn bopp rek kenn mënu koo xar ñaar te lu mën a xew jàmm rek njaboot gépp genn njaboot la njaboot gépp genn njaboot la ndax réew mi sa Sénégal yaatuwut koo fi tudd rek boo doxee faneen xam ne am nga fa ay bokk mënoon naa gën a rafet daal. déedéet ah mën naa gën a rafet ci ci nii ma doxee nii euh, ci Sénégal réew réewu teraanga la man gëm naa ne Sénégal war naa mën a gën a am waneen doxinu bu bokk dox wi dox wi mu dox ndax dox wi mu doxam nekkul dox kenn rafetlu waaye na ci kilifa yi wax kilifa diine yi wax ci kilifa aada yi wax ci. Euh, ki nga xam ne nag moo fi nekkal àdduna si Sénégal gépp nag muy président Macky Sall tam nay jëlale tey jéggale ndax lu mën a xew jàmm réew mépp moo ko yilif loolu yàlla dogal. kenn mënu ci dara nag yàllaa ko fi teg te lu mën a xew jamono moo ko fi jëlee menn mbindeef mënu fee jëlee président Macky Sall lu lu da àppam daa jot mu mu war fee jóge ndax fi eh, taal réew mi taxut Macky Sall jóge fi te lu tey itam tey itam lu mën a xew jàmm itam eh, jógeem fi moom suñu borom rek lay sopp waaye du mbindeef moo ko fi jëlee. mais parfois nervi eh, wax ne. kenn ku ci nekk rek boo xoolee ci sa njaboot am nga ay rak am nga ay mag am nga ay wayjur kenn ku ci nekk rek boo xoolee ne bëggoo kenn ku fitnal sa njaboot doo fitnal njabootu kenn kenn ku ci nekk daal bo boo boo jëlee ñëpp def ni nga sa bopp jël ñëpp def leen ni nga def sa njaboot jàmm rek am ci réew mi ndax fi moom kenn gënul kenn yàlla yàlla rek xam kan moo gën kon nag faaw nag ñuy muñ tey tey bàyyi xel nag jaay doole ci réew mi amul njariñ yàlla yàlla app doole ñëpp te bu doon jëfandikoo bu doon jëfandikoo dooleem kon àdduna bi kenn fi des ndax lu ko soob mën na ko def ci ab jaamam te te du mujj fenn nag te itam doole ji ñuy wane ñuy wane ci àdduna bi fii rek la yem fii rek la yem dama bëgg nit ñi ku mën a doon ak koo mën a àndal moo xam ne président sonk moo xam ne président Macky Sall kum ci mën a loo ci dem nga demee sa xel te xam ne àdduna bi moom jeex na ba noppi dara jëru fee ñaaw dara jëru fi dara itam lu mën a xew jàmbaram dañ koo woo na dem wuy ji su lu mën a xew jàmbaram bu nekk ci dëgg kenn mënu koo kenn mënu koo tëj waaw xaw ma nag lu xew man parce que man daa ko du man man daa ko du ma ci dox waaye lu mën a xew jàmbaram dëgg rek mooy njëkk rek mooy mujj ëllëg nag ëllëg la lépp di leer waaye gëm naa ne Sénégal gi ñu nekk mbirum Sonko du fi masa leer moom du fi masa leer ndax boo seetloo lu ñu jógee ci la ci des lu ñu jógee dem ci la ci des jóge nañ ci Sonko ci ci Adji demet nañ ci kee Mame ñaa nga xam ne kon dara mun fee leer te bañ demee ba ba war ko àtte gis nga li li xew ci réew mi ba lépp daa lépp daa mujj doon sero te gëm naa tam la la la leen li ñëwaat noonu rek lay demee waaw ndax amul suñu borom ci moo bëggul dara lii lii leer moom tey de mënta leer nag mënta leer ndax lu mën a xew jàmm tam jaay doole man na cee am euh, ñu def ñu def lu leen neex waaye fii moom gëw ma ne mbirum Sonko dara dana fi leer man daal li ma bëggoon mooy ñi fi ne euh, teñ te dañ jàpp ne ñoo am doole euh, nañ xam ne amuñu doole yàlla rek am doole te lu te buroon jëfandikoo ci dooleem kon adda bi kon ñëpp ñëpp tew ci aw ndax kenn ku ci nekk de yaa def la neex suñ suñ borom bala ca yàkkamtiwu yàkkamtiwu dara ci ay mbiram waaye na xam ñun ñëpp ay doomu aadama rek lañu kenn xamul kañ fi kenn di jóge kenn xamu ko waaw ñi ñi ci faatu tam damaa gëm ne suñu borom moo ko dogal ñoom ñu war a faatu faatu ndax ña ca war a faatu faatuwuñu ña ña ca war gaañu gaañuwuñu kon ku ca dem si bopp dogal nga des fa rek lool moom euh, moo jiitu sag dund. ci loolu nag laa bëgg a prévision moo jiitu sag dund. bu ñu jàpp la bu ñu jàpp ne président Macky Sall la ko dogal ne diw ko ci bërëb bërëb sangam lay faatoo kenn mënu ci dara nag ndax kenn du ak deewam waaw. macha allah euh, ci loolu laa bëgg a profité comme ni naan euh, nit ku nekk fa nga war a deewee ngay deewee mais xanaa am kaaraange ci la bokk. xam nga kaaraange maam gi nit ki wadd naa ko ci barke Serigne Touba ne bu yoroon ndomba gi nga xam ne bu ko takkee du faatu bis bi mu war a faatu ko takk bu ndomba gi bu ko takkee du faatu bis bi mu war a faatu ndomba ko rek euh, nit euh, li muy def day fekk ne dafa rep. waa xam nga rep moom moo jiitu lépp moom ndax loo xam ne moo jiitu moo jiitu sa sa sa judd moom lu mën a xew jàmm te yàlla tudd na fa nga koy defee fa nga ko war a defee ba noppi yàlla nay yàlla nay fu neex suñu borom nag. waaye lu mën a xew jaam ku mën doon ci réew mi nga yor sa bakkan bi di noyyi bis ba nga war a faatu suñu borom bind na ko noppi ak waxtu wa nga ko war def ak seconde nga ko war def ak bërëb ko war kenn mënu ci dara lu mën a xew jàmm itam Sonko am na ñoo xam ne danañ ànd ak moom ba xëy faatu te te duñ faatu ci mel nii waa koo gis mu dem ca bërëb ba faatu fa war a faatoo ndomba kaaraange nag am na fi goo xam lu gàtt-gàtt mën ngaa dund juróom ñett fukki at kaaraange nag réew mi jamono ji ñëpp ñëpp ko soxla muy góor di jigéen di mag di ndaw na ñëpp wuti kaaraange gannaaw na na ñëpp wuti bayre am na xam duñ ko gëm de. waa ku ko gëm sa xam nga li gëm mooy xam ne lii baax na pare gëmoo ko ah fi am ñàkk a doyloo sa bopp la ndax suñ borom moo suñ borom moo ñu ñuy muslu tey moytu ndax téereem bi lépp ngi ci te lépp lu ci nekk rek day aar jaam ay jaamam. kenn ku ci nekk dem am na ci texte yoo xam boo ko di jëfandikoo da nga gudd fan da nga wér da nga am taraanga da nga mucc waaye lu man a xew jaam am na tegtal yoo xam ne bu waxtu boo ko fa bàyyee la leen loolu daal sa bopp. bëgg naa nga leeralal kaaraan gi ndombo kaaraan gi mais balaa ñu koy leeral damay laaj ba xam nit bu ñëwee ci a doon seetal pare waa xam nga seet moom moo jiitu ci ñaan euh, sëñ ma dikkee moom du du seetal ndig du ñaan ndig ci làmbatu parce que man defet laay bañ waxtu woo ma waxee li bëgg. da ngay bàyyi ma xool ko moo tax ma xam nan la ci duggee ba bu ma ci duggee xam nu ma lay mën a ñaanale waaye man du ma làmbatu mbir te ku seet gis danga maa ñaanloo ci mbir bàyyil ma xool mbir mbaxam moo xam muy dangaa tëju wala nga li loo liggéey mu yàqu wala munoo téye dara wala nga nga am jafe-jafe ci àdduna bii lu mu ci mën a doon rek nañ ko xool buñ ko xoolee ba xam ne lii moo ko waral dana mën a saafaroo waaye làmbatu ma du ma ko def déedéet. ndax suñ ma dikkee dafay yëngu ci mbirum nopp waaw xam nga ñaan mam bàyyiwul dara da ngay ñaan kon fekkee man nga li ngay def waroo waroo bàyyi dara man nag mboolem loo mën a bëgg ci àdduna te muy te muy loo xam ne dagan naa ko def jubale ay nit dama koy def waaye du ma teqale ay nit danaa jubale waaye du ma teqale teqale ga ga gamay gamay def mooy gi nga xam ne say wayjur ànduñu ci te gënul ci yow su boobaa boo ci boo ci bëgg dund boo ci bëgg dugg dinaa ko dindi moom seet ba du am même bu amat na ko yàq waaye nag ñaar ñu ànd ci ci ci ànd ga ñu war a ànde nga bëgg mu yàqu moom man ko def waaw bu fekkee da nga da day ñaar dañoo bëgg a juboo moo xam nga bëgg a juboo sa njaboot wala sa boroom kër wala nga am koy bëgganteel dagan na nga am koy bëgganteel te bañ mu rëcc la maa def ay ñaan waaye li moo def ay ñaan ay caaxaan waaw def nit ak noob mu topp la nga dem ba di nga di mooy yàlla du ma ko def waaye fekkee da nga bëgg nit ngir soxna wala boroom kër mu jafe tam wóoral la loolu rek moo tax a jóg incha allah bu ma taxee mu sotti bu soobee yàlla waaye du mbool du ma boole ay ay nit mukk ñu ma yàlla nag moom. mais ku ko. waaw xam nga su boobaa bu ma xoolee ba xam ne ki dañ ko dëj mën naa koo dindi bu ma xoolee ba xam ne dafa jotu ko ci moom mën naa ko defal ay ñaan bala bëgg mu am ko tam gën ci moom ndax lu ci nekk lu ci nekk day am ndax nit mais na koo dëj ci bërëb ba ba lu mu yaakaar mu tas ku ñëw ku ñëw ba jàpp noonu la bu demee du ñëwaat waaye dogal bi yàlla tam mën naa wàcc nit ki àppam jotagut su boobaa mën nañ cee def ay ñaan ba lam bëgg moo am ko te te dana gën ci moom. waaw cangat waa damay damay damay def ay sangat waaye sàndpaa yow ci cangat yi nga bëgg yow ndax dama ne faaw ma xool bu ma xoolee nag ba nopp ba gis danaa xam yow lan moo jaadu ci yow waaw mu daal li bëgg mooy boo ma wóoloo bàyyee ma sa bopp bu ma xoolee danaa xam lan moo gën ci ma def ko incha allah waaw aussi politicien xam na ko de képp koo xam ne bëgg ngaa doon président laa la de bu la jaralee incha allah mën nga ko doon bu soobee ak foo mën ne ci réew bi nag bu la jaralee mën ko doon. na la ko jaral rek waa xam nga bayra moom ah, sànq maa ngi ko ci biir wax bayra am naa ci ñaari mbir bi ci njëkk mooy sunguf la mm-hmm. ah, am na yi muy àndal da koy raayoo. waaye incha allah nit ñi dañ la bëgg ba mu jaaxal la waaye bi ci gën a efficace mooy jaaro bi jaaro da koy takk sa loxo ma nga fee ma teg da nga koy takk sa baaraam waaye koo jox loxo daan la bàyyi xel lool ba dam ci sago moo xam muy góor moo xam muy jigéen déer ñaari bayre la mais xam nga bayre sunk moom comme bayrem njaay la ngir ngay am looy jaay tam tam tëë jar su boobaa ma boo ko defee ci ni mu war ànd yëpp da nga koy saa boo da nga ci wis ci li jaay rek da ci raayuwaale incha allah loo loo yor dana jeex waaye fekkee da nga bëgg nag comme ça comme xeetu noob yi moom boo ko amee koo ne jàpp loxo bul ko wax dara maam bàyyi nga ci moom fii nii brise boo xam ne moom buy buy buy ñëw buy ñëw ca suuf ko tey. aussi dama gisaan wax bi lañ koy liggéeyee juróom yoom deru xar la waaye deru bëyul daru dama dama ko andi ngir mu xam ne der bi ni lay mel rek waaye daru bëy bu ñuul lay doon comme nii lay ñuule nekk wenn melo juróom-ñaari gaaw lay doon waaye incha allah boo ko amee lu la sa fit may boo ci duggee am ci ndam te ku la bëgg a liggéey mu këpp ci kawam laal yàqu kaaraange rek kaaraange la maanaam ci gàttal kaaraange la ci lépp nag waaw kaaraange ci lépp. waaw su boobaa bu xamee lan moo téye dana saafaro damay ñëwaat ci cadre seet rek. ndax léeg-léeg niir boo xam ne ma sëñ bi damaa wut ay kiir waaye saa bu ma demee ñu ñu dàq ma léegi lan lan ma war a dàq gi dañu war a xool léeg-léeg nit di ma fi dama kalaame ay sëriñ yoo xam ne dañu def ay ñaan ci ay kiir da sotti may leen xam nga mbir des ko làmbar boo bëggee ay kayit ak fu ma ak kayit yu ma doon nag moo xam ci réew moo xam mu bitim réew nañ xool ba xam kayit lan moo ko baare ba noppi ñu xoolee ba xam ne sarax yi moo ko baare boo ko defee incha allah am na càngat yoo xam boo ko jëfandikoo 21 jours li nga bëgg danga ko am bu soobee yàlla man maa wax li mhm. waaw ndoxum siti moom incha allahu dama koy faj ci nit waaye mook émurit lay boole waaw mook mook émurit lay boole waaw moo xam muy bu génn la moo xam mooy bi nga xam ne génnul ndax ndoxum siti moom dafa bon ci ndax mën naa yàq soo yaram mën na laa jural néew kàttan nga jàpp sax dajaa takk xala fekk ndoxum siti moo dem ba téye sa ngóora wàññi ko wàññi ko nag ba mu dem ba des tuuti ba dootoo mën dara waaye lu mu ci mën doon bu ñu xoolee ba xam ne def-def waralu ko ndoxum si rek la dana mën saafaro même bu dee def-def itam insha allah mën nañu ko dindi bu soobee yàlla émori itam nee naa ñoom ñaar lay boole émori moom toogaa bi yàggal koy waral moo xam ngay dawal moo ngay jàng moo xam foo may ne to toogaa bi yàgg mooy waral émorit maa maanaam nga bëri ci wana wa doo bàyyi fi ne ngalaw kese ngay génne loolu fi ne émorit doo koy waral waaye suba bu ñu xoolee ba xam ne moom la dana mën a saafara woon incha allah. Mhm. parfois nga gis euh, xam nga loolu yàq mën naa mën naa am ndax lu mel noonu moom dañ lay yàq maam daa lu baax moom doo ci xam dara lu bon rek ngay def lu bon rek ngay def loo jógee dem ci la ci des fi tàmbalee mooy commencé génn guddi te commencé di say bu say kilifa wax ngay tontu. léeg-léeg nga nga gis nit nit tux nga ne xaaral ma isin dem ba commencé tux commencé naan dem ba commencé ànd ak ay jigéen di mooy yàlla te nit koo gis muy mooy yàlla mu neex ci xolom lool xamal ne ab xolom yàqu na moom lu bon rek lay xam te dana ci bëgg génn waaye da du xam wan yoon lay jaar man am naa ci ay kaaba tay tey nit ñoo man ka sama doom day def lii day taxawaalu day daawut génn waaye léegi mi ngi am ay àndandoo léegi sax léeg-léeg mu France léeg-léeg du France day tox ak day naan lépp da koy def waaye su boobaa tam ñun bu ñu xoolee ba xam ne lii la li ma ko dindee mooy gura bu dee tox wala muy naan gura laa ko dindee bu dee daga day ànd ak ay jigéen taxawalu danaa fexe ba dëdd ba dëdd ko ak jigéen ñi moom waaw. ñu gis am béy loolu moom am naa fi saafaraam bu fekkee am nga soxna soo xam ne mës sa fay bu la mayee sebetit am na lu ma la jox nga boole ko am di ko raxasoo loo am dana toog incha allah. saafara si am na fi waaye da ngay am soxna soo xam ne musta fay musta fay su boobaa bu sebetee ba noppi na la may ci sebetit ma am na saafara soo koy booleel di saa boo xëyee nga di ko raxasoo sa allahu la am dana toog bu soobee yàlla. Hmm. commencement boo xam ne euh, ci mbirum actualité ak mbirum làmb dañu gis benn boo xamante ni euh, mi ngi war a jël laajte dañu koy wax Siteu gis ne euh, ñu bëri mu war du baaxul. xam nga dama cee waxoon ci Balla Gaye Boy Niang ndax neewoon naa du combat te buñ demee ba ca làmb ja danañ xam ne du komba xëy na nag dox nañ ba làmb boole leen waaye du combat la tax ma xam naa ko ndax gone ak mag la te gone doole jum yor mag mun mu mundu ko yor ñaari ñi xëy na Siteu gone la Lac de mag la waaye bu ma sañoon moom ah, am na ba noppi nag ndax tëgg nañ ko xëy na moom dindi gi du yomb waaye lu mën a xaw jàmm moom na moytu te wut kaaraange bu wér a wér a moytu gi bari waaw na moytu te wut kaaraange gu wér-wér te moytu génn bari waaw. réew mi ni muy doxee. waaw réew mi ni muy tax dara neexu ma ci dara neexu ma ci fekkee dëgg rek nga bëgg dégg réew mi ni muy tax dara neexu ma ci war naa mën a réew mi comme réewum teraanga la war naa mën a gën a jaar yoon ci nii muy doxee ci côté jaay doole gi réew mi naqari na kenn ñi ma tudd fanaan àll kenn ñi ma tudd génn ndax fii nii réew mi ja met na met goo xam ne. wuyu yeeg agresseur yëpp léegi léegi ñu ngi ci raaxaloo te li ko waral mooy xëy na méttiwaay jamono ji ndax boo xoolee réew mi ni mel jamono ji melu ko woon kon nag am na lu ko waral kon ñun ñi fi nekk te war koo defar nañ nañ nañ gën a xool suñu bopp baax a baax a baax te gën a xam ñooy ñan te gën a xam fuñ bokk ndax ay nit ñu baax doo nga fi nekk képp ku bon rek yaa bëgg a mën a sa bopp waaye réew mi ay nit ñu baax doo nga fi nekk ni muy doxee nag dara neexuma ci moom mu daal li ma bëggoon mooy muy yow mii di man mii euh, lu baax lu ñu yéen suñu bopp ak suñu njaboot bu ko yéene ay jàmbur Sénégal jëm kanam waaye yow da ngay bëgg a mucc bëgg a wér bëgg a gudd fan bëgg am taraanga ba nga xam ne bëgg na léegi nekkee du ko am. Hmm? bu dee ñu ñàkk bakkanam mën ko xam nga ñàkk bakkanam Sonko moom bakkanam boobu moomu ko yàllaa ko moom yàllaa ko yàllaa ko mën a sànq moo ko fi mën a bàyyi kenn mënu ko sànq rut yàlla lu mën a xewu jàmm itam lu pexe muñ mën a def ci moom te àppam jurug du fi jóge sànq li may wax ci Macky Sall la laay wax Sonko rek Macky yàllaa ko fi teg kenn mënu ko fi jëlee ku suñu sonkoo Sonko mii itam lu mën a xew jàmm coow mën naa bari lool mën nañ koo sonal lool tam waaye lu mën a xew jàmm tamit li fekk waru fi jóge fi jóge waaw bakkanam mbir ci ci ci loxo yàlla ne nekkul ci loxo jàmm ci loxo suñu borom la ne suñu rek moo ko fi mën a jëlee ci anam bu ko soobee nag Sonko xamul ci boppam dara xamul ci boppam dara. ñun ñi kenn xamul si bopp kenn xam ba xam da nga fanaan wala nga yendu yàlla rek xam lu mën a xew jàmm tam moom bay ba mu dara mu dala am xelam bu baax a baax a baax te xam ne bakkanam bii mi ngi mi ngi koy wax suñu borom min def mënu ko min def mënu ko ko xañ waxtu wu waxtu wu jàpp waxtu wu faatoo ci mbirum mel nii na ñëpp xam ne du moom yàlla ko dogal Macky Sall mi itam toogaayam bii du moom yàlla la yàlla soob mu teg ko fi ndax bañ koy xëccoo bari woon nañ lool suñu borom tànn ko teg ko fi kon lu mën a xew jàmm lu wax ji bari bari lu coow bari bari suñu borom mi ngi fi rek moo ko mën a jëlee kon nag na ci nit ñi dara seen xel baax a baax te xam ne euh, adduna bi jeex na ba nopp dara jëru fi dara nag na na nañ bàyyante xel te gën a góorlu te dem jaamu ji bay caaxaan yi dem jaamu ji yàlla bay caaxaan yi te jéem a raxas suñu xol yii na raxas suñu xool yii te yéene ñëpp jàmm maa ngi jégalu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh